Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli man wala ila yawmi فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب زدني علما نافعا مباركا أملني بلغني في القرآن الكريم ورب تبارك وتعالى بقبقم joxe ay melokaan waaye bi mu paree nag mu nga xamante ne dafa bëgg ñu xam ne moom mooy yàlla jaamam ñi ñoom ñooy ay jaamam dalee ko ci yónnentee mu wax fii utilisé baat boo xam ne tey jii moom la ñuy utilisé mooy waaye baat bu baax ñun ñu di ko wax ci olof mooy nitu yàlla ñu di ko wax ci séeréer utiin o buñ la ko waxee rek ci yónnentee nga tàmbalee ndax la ko waral mooy ne lu ñu tuddee al wilaaya moom moo fondement am nubuwa moom la Ibn Arabi waxoon te comparé na ko ndax yonente boo gis dafa am wilaaya ba pare bu rëyee nag doon na lii moo tax mu ne fondement wilaaya boo gënee dëgg fondement nubuwa lam ca nam mooy ne yonente boo gis wàllu yu la ba pare yurayimdilenketa unnadiyi yegaddilenketa don mursal mooy rasul yegaddilenketa bokk ci saalikiina yegattilenketa bokk ci ñi mu muqarrabina ñaar yooyu noonu nag mooy nubuwa ak risaala ndax la ne la yee arti na ko moo tax yonente mën na doon saali ki ñuy tuddee wali ñoo nekk saali te pourtant nubuwa ak salaax salaaxu moo ko féetee ci kaw martabatul qurbi moo féetee ci kaw rasul kon risaala ak nubuwa ay martaba yu rëy waaye nag nit mën na koo romb di yëkkati martaba bu leen gën a kawe moo ak mboolem yonente yi doom ñaan yàlla ne rabbi Ibrahima nabi la woon te gëmoon na yoon rasul la woon waaye mu wëlbati ko di ñaan yàlla ne boo demoon dina saalihiina parce que martaba boobu moo gën a kawe martabatu nubuwa ak martabatu islam moo tax ñu ko yàlla tàggee ba yóbbu Sidina Ibrahima la ko tàggee ñaan yëpp wa innahum fil axirati lamina saalihiin moom la ko yàlla wax ko martabatul qurbi itam dafa jafe yàlla ëllëgam na ko tàgge mooy Seydina Isa wa jiyan fi dunya wal axira yal nañ ko yàlla moo tax tey jii nii dana gis wali yu boo xamante ni yëpp ne ci martabatu salaa te doonul kadim wali yu jafe na am na ci nubuwa bi yàlla na leen am ñu mu tudd ci kabu jëf na mu tudd ba am ñu mu tudd na sax ต่อันนี้เราทำมันเป็นเที่ยวคนเดียวแตลเราราดสละเทปตาลังเลยในที่นี้เลยคนพวกนี้ดีอะไรจะเป็นผู้สืบสในโลกการเยามันดีเยอะกว่านี่้มันลักนิ่งแล้วก็ยิ่งโกรธอำนาจผู้ดูในเทอะไรตัวแก่นมาตั้งยาเลยที่นี่ยอะลยที่สุดเราถูกฟูกันถูกฟงกันที่นี่มีมือแย่บุตรนี่เลยอะไรที่ที่อะไรเสียที่นาดีแต่เนี่ยแค่เป็นระดับจุด ku mel ni moom làq nañ ci diine bu jëkk waaye bul def nii koo gis rek mu neex la rek ca askanam wala ca santam wala ci am am wala ci colinam nga ne kii di xam mbaax boo xamee mbaax nga xam ne kooku ku baax la ku melul noonu bu la def nii ne jël ne diw sàngam nii la sant kon baax na lay ko am te bëri na ñoo xam ne tey bu moom da ngay gis koo xam ne du sangam baax na moom mu ñëw dee ne baax na jëflanteeg moom fekk fa muslima boo waxee mu ne dama foogoon ne ku baax la parce que doomu nit ku baax la déedéet yàlla ne nii na nit ku baax di mel melokaan yooyu nag moom lay tudd commencé ko ci jom bu ne waaye Ibaadu Rahmaan waaye yàlla la muy doon doon yàlla daf ko boole ak màndute wax na ne nit ñu baax ne dañuy muslu ci moom safara yàlla ne maay ki leen moom le waaye nag moomeel nga nag dama ko teg ci maam bi moo tax mu ne safara a azabaha kaana garaama safara ba ma leen dugal dama leen ko fay may seen bor ndax léeg-léeg bi def lu baax nga fayee ko lu baaxul jëfa aussi min ma jax ñu ko ci tóori lu bari si min ma pour lo pour lu ma ko di waaye la woon xam nga buur dem na buur moom moom ñëpp lu ko neex moom bu dee ni suñu maar ci moom la la bokk suñu maar liggéeyal ko tabaxal ko tabax boo xamante ne masu koo tabaxal kenn ba mu paree ñoom ñaar ñu dugg ci tabax bi di seet mu di koy won li liggéey bi baaxee ak ñun dëgër ba mu paree mu ne ko buur bi mu ne ko naa mu ne ko am nga benn bunt boo xamante ne boo ko laalee nag mu ne bu boobaa lépp yéene ko tawal yëpp mu laaj ko ko mu wax ko mu jël ko sànni ko puus ko mu daanu noonu la ko rek mu ne pour bu mu dem ba jamono mu kontul ko fexeel ko pour rey ko ci biir paleem ba kon xam nga kooku defal na ko teraanga waaye ci biir defal na ko teraanga ndax naan ko fay baax na moo tax arab yoo xam ne déjà aussi ñu naan mooy fay nit loo xamante ne waruloo ko ko fay wala gàttal ko rek mooy fayu naar bi xoromam noonu la ko olof di faral di nit ki la defal lu baax dañ ko war a fay lu baax waaye léeg-léeg nga gis na ko ngir ne moom moom moom lu ko nekk mu def ci biir kër kër gi lan la ñu lu nekk lan mu la ko nekk ci société bi du ko nekk yàlla nee na maa ma ko كنت آية محمد بوحان صلى الله والذين إذا أنفقوا ويتي عليكم سن القرآن إيمان جهر سينو على الكيلو بخ وأجلو قلنا أمن تجاه بين الدرد tam yàlla waxtu lu gën nee na ku tabe lu ko neex na def àjjana la jëm ku tabe àjjana la jëm mais wax na ne sax moom yonente ki ñu tuddee adi xaatim xaatim al asam xaatim ki nga xamante ne moo leen tuddee adi xaatim al jawad xaatim atayi xaatim atayi xaatim atayi bokkul xaatim al asam kooku suuf yaa ngi doon xaatim atayi moo jiitu yonent bi yonent bi nee na seen naa ko ca saxaar waaye dafa mel ne dañ ko defal benn kees buñ ko dugal moom bugalay safara mu ngi tudd safara waaye bugalay safara yëgul ci moom parce que tàggat moo tax yonente bi ne nag ki tabe du dugg safara ki tabe te gëm doon julli ak lu mu def ci lu bon du moom la ñuy boole ci ñi dugg ci laaf parce que tabe ba mu tabe woon moo tabe ko ci yonente yi xoolal Seydina Muhammad kaana yu'ti ataa man laa yaxsha faqr yéen a dem ba doon may maye ku ragalul ñàkk googu noonu moom la Abubakar yi jël saxaaba yëpp jëlee ko ci moom. te benn mooy ca la nga am. lu su fekkee ne wala lu si ci tàmbara tey jii nga am benn tàndarma génnee ko saaxee ko tabe na. moo ki am saako tàndarma joxe ci dëgg kilo yaa ko gën a tabe parce que yow am la jox moo tax tabe nekkul ci loo amul ci li nga am ngay jox. lu yëngu fépp lu sa ati. min sa ati nit ku ne ca la nga yàlla jox dénk la génnee ca loolu. moo tax kenn mënta naan man aw ma dara kon mënumaa def dara mënumaa jox da ngay gis ku taw man mënumaa jox te parce que aw ma xam ah, nga nit ku nekk am na dara bu la yàlla jox pour di bala am joxe ci boo demee nag ci nit ñu baax ñi dangay fekk ci ñoom wax naa ci ay kilifa yu démb waaye dangay fekk ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñu baax ñi nga xamante ne ñun fooguñ leen ne nit ñu baax leen ndax léegoo léeg dañuy foog ne rek ñooy sol ay sabaro ñoo rek ñoom ñooy nekk nitu yàlla am nañu fii sol ay costume di xëy di dem ci marché ba am seen lu ay nitu yàlla pii jarabaay xam da nga gis benn waay yoo xamante ne mu nga yéeg ci kaw otoom am étage am compte banque yu dul jeexati tey jii nii boo ko compté woon ca yàlla ci baax moo gën am na xalif général bi ñuy tudd di koy ziyaar di koy raabal boo ko tegoon teg kooku boo ko gën foofu ca yàlla boo ko ëpp di laaya sa du naaw parce que li ko def ci xalif général sa du nekk woon nii waxal ko ñu waaye dafa doon loo xamante ni mooy la yonente bokkoon di taxa suru wasaab dem nga jël ay ñoo xamante ne neex na leen rek ñu fàlle te kii mooy suñu xalifa lu mu wax loolu la ñu wax loolu programme àdduna la bokk xaajul bokk yi ak li ci yàlla gis naa ko fii ci Ndakaaru danaa ko ko nettali am naa moom bu ko déggee du ko wax ko waaw ko déggee nga xam ne dañuy jàngale fii ci Ndakaaru koo xamante ne macha allah dem naa këram këram dana mu taxaw këram dana mu na mu yanjee macha allah mu nekk directeur ci benn société fii ci Sénégal presque jamono ñëpp dafay dem tukkee waaye macha allah ci biir loolu boo ko xoolee nga يجون ضمن بركة الملك ما شاء الله ضمن أكرم لم تفوق خلوة بما يجمع ما شاء الله يتاكتو ميوم كون لا تاري يوم وهم من نمو باخر كفتي باخر أجابهم تاري بنا تبودا أي ديبولو مفرانسي لا أي ديبولو مفرانسي لا waaye fexe na di jàng alquran di xam diineen di koy dund nag di koy bàyyi jaxasoowul ci jaaxal jaxasoowul ci loo xamante ne du noonu du àgg ñu ngi ñuy liggéeyal ñu jar a bàyyi ndax Seydina Souleymane yonente la woon te doonoon buur Seydina Daawuda yonente la woon te doonoon buur Seydina Yuusufa yonente la woon te doonoon buur Seydina Ibrahima ñàkk na woon tous ci kër Nabillahi Ayuba ñu ñàkkoon kenn balaa bi di ñëw ak bi feebar bi demee mu bëri alal nga ne kii bokk ci wàllu ah ah, ah. da nga gis ku la ëpp wilaaya foofu ëpp la alal foofu la moo tax moom moom la nga juddee lii tàggat dinaa ko xam ku rek macha allah famille mu génnee lu mat ñeenti million dama lii maa ngi koy jox ñeenti million mu jël ñaari million mu ne lii dama koy jox ca liggéey ba liggéey ba liggéey ba nga nekk ca dara mu ne boobu maa ko def ñaar yi maa la ko jox ci xol ma ne ko doo ma gëm ci yàlla gis nga ñaar yi ma jox ci ko dugal ca liggéey boobu ne mu dal di dugal ci biir kër génne waat beneen enveloppe mu doon benn million mu teg ko ci mu ne man lii kon maa ko koy yokkaat te liggéey ba ca daaw kilo du yow xam nga dama ci dal mu ne ñu mel ni yéen dañ leen soxla parce que nekkoon ne dañuy bugg a def suñu alal te duñ xam suñ koy def te duñu toog di xaar parce que ba toog di koo xamante ne mérité wu ko nga jox ko wala jox ko waaye yéen ñu nekk ci daara ñetti liggéey ci alquran seen façon bi dañ koy soxla ñu mën dafay def di jëm ko def te kooku buy wérdu bés bu nekk danay wérdu ñeenti waxtu yoo xamante ne ci course ak lay lu bokkul ak fu mu nekk rek mu ne mu ngi tudd te amoon na ay programme lu dul bu jógee fii dinañ xaw a bu jógee fii bu ñëwee gis nga ko président journal la ñu ne ko njabootam def la muy def noppaleku bu ko jaree mu jox nekk ci ay affaire boo xëyee dajee moom nag ne kii ah ñii du ñu dara wala nag mu yëg ci biir oto bi mu ngi ñooy gis nga ko kii baa koy ëpp nga gis boo xoolee der bi macha allah tey jii nag nga xamante ne retraite nag amatul benn boo ko xoolee da ngay yëg kon mu mel ni am na gars yi yàlla yoo xamante ne ñu ngi fi ñu foog ne ay nitu alal lañ waaye jiite ay nitu yàlla biir lañ ñooñu seen alal nag dañ koy dépense di koy joxe ci yàlla di koy joxe ci gis nga ko fi nga xamante ne foofu mooy foofu yàlloo ma ko yàlla ne wala dina ida an fa ndax ko amul dërëm mën na joxe dërëm ak boo amee fukki junni fukki junni bu mu mën a liggéeyal yàlla Seydina Ousmane jëndoolu fukki junni

téerewul nag ñu nekk ñu ci yàlla xam nga am na benn waay yoo xam ne ci jiitu yàlla fekk su fi ñëwee ba mu taal ci lépp mu ne est-ce que kii sëriñ la est-ce que kii ñu ci yàlla nit yàlla am na ko yéene bu rafet mën naa am oto bu rafet te alquran dafa wax ko ne kon man xaaral ma lépp lu baax kan moo ko xaaral كل من حرم زينة الله يا رب لك كم محرم كل من حرم في زينة الله يطلع برفق وحرم يلا تكينا كل يلي الله لا إنه أدوم كده ما تبري كل يوم كل يوم أخيرا مصطفى كايرا خالصة يوم القيامة جسنا نيتو أدنى يتنى كل أين يلا يبوحن تكنا غير واي يوم لا كويسة يلا نلبي لما بيجي ترى أنا كل جنيه ndax ci hadiisul qudsi mu ne mu ne bu dul woon ne àdduna tekkiwul dara ci man yàlla yéen a def naa sama sarbatana kon àdduna bi ci biiram bi yàlla ne la ku jëm jënd di la yéen a ngi ñëw wala saa saa ñëw rek boo xam ne comme yéen te xaalis bi mu yombal taw bu yombal taw bi jotee ko yéen kese la moo tax bokk na ci critères yi nit yàlla yi mooy dañuy mën a joxe waaye dàqul ci ñoom ne nekkul nit yàlla. mooy nga gis ne ñuy sol loo xamante ne lu rafet la wala ñuy dëkk foo xamante ne fu yaatu la ndax yonente bi wax na ne nit ñëpp yi ci bonóoru nit ki la bokk mu ne bokk na ca kër gu yaatu ñaareel ba soxna su baax ñetteel ba waruwaay bu nooy yonente bi wax ko sallallahu alayhi wa sallam Seydina Daawuda dafa doon nekk lu neex di fanaan fu nooy fekkewu na ko jaamu yàlla bëri na ay yonent yoo xamante ne boo a bu ma ne ak xiif ñu doon ak mar ak mar ak ak sonn firiwul ne kii nitu yàlla la di laa ne koy nettali toujours benn borom xam-xam wala nitu yàlla boobu nga xamante ne benn dëkkandoo moo ko tàgg woon di dem ci benn dëkk mu ne ko boo demee nag noonu yéen diw sàngam yéen bi fekk ko ci teew bu na ko moom muy jàngale mu ne mu nekk fa jëngoon mu ne ko diw sàngam leen naa la te loolu mu ne daldi mu ne ko diw sàngam mu ne ko wax mu ne ko boo demee nga ne ko bu bàyyi àdduna ah yooyu mu daal ñàkk fay daam boobu noonu soo ko àdduna rek àdduna amul solo waaye di daal di nag parce que mu ne dafa gis ne kii mu ngi ci àdduna moom ñuy muy wax kenn dina bàyyi àdduna moom moo war a bàyyi kenn parce que ci moom la def àdduna ba mu yëggee nangu ko ko wax ba mu laaj ko dafa ndax gis nga diw kan la mu ne ah mujj naa ko gis nag mu ne ko lu mu la wax mu wax ko lu mu ko wax mu jot mu ko wax mu jot ne ko gis nga moom moom mu nga ca àdduna am na lu ne waaye yëngu ko ci biir ko te laaj bi ko yàlla la rajo waxoon rek laaj ma yàlla àdduna kon du ma ko laaj มันทำไมมันฟี้มาตรงนี้บูญอะไรบุญอะไรบุูอะไรมันเลยไม่มาทำนาใจเลยมันจะไม่บุญอัะไรที่เอาแค่ยังเลยมีคนละคนอะไรคนกันที่มันมาอาชีพอาบุลกาดีเดลานี่จะกูมากมากอยากคนละรุ่นเดียวไว้มุ่งเดี่ยวละอยากคนละนะมุ่งเดี่ยวลหว่าถ้าบุญวันนั้นการเวลาไม่สบายเลยยุ่งที่ยวเดี๋ยวเสียงสุดสุดสุดเนี่ยเรอกเดี๋ยวสบายจะขาดไ أعطوا هذا الفضل أخ أنت أنت تعلم الفضل غصب الفضل أخ أنا ما يقاش نيلة أي يمكن خبو في نوم ليو تعلم يكتب سما قرأت يا الله يكتب خمنا لي أصلا ما يلانا خمنا تنين مم لا واجه وقل تعلم سهل بن عبد الله الكستوري mu يقول ko yéen naka ngeen di def seen dëkk xam nga bu ñun de moom bu ñu amee ñu daal di ñu ñu daal di sant yàlla bu ñu ñàkkee ñu daal mu ne ko boobu baax na mooy bu la yàlla joxee nga sant bu la xañee nga muñ mu ne ko boobu baax waaye am na lu ko gën mu ne bu la yàlla joxee nga joxe bu la yàlla joxee nga joxe bu la yàlla xañee nga ko kon mu mel ni dara nekk ci bopp imam Malik léeg-léeg am na ko ku ma ko wax ne ko fii danga bëgg àdduna mu ne ko du bëgg àdduna xam-xam bi ma yéene moom lay wax ma du koy taal du koy màggal kan moo gën a yéene Imam Malik ca Madina muy sol yére bu rafet kon dara nekk ci Imam Shafi mas na ko fekk mu ranale ay fas ci jamono yooyu noonu dana wax ci jamono ay oto boobu mu ko ne ko waa si lii nag mu mhm. mhm. mhm. ne ko taal bi ñoom moo ko indil hadiya imam Shaafi ne keroog ba muy dem may na ko ñeenti fas pour woon na tabe day tam nga moom la ñu kon pour woon na rek ne am alalu adduna am darajaay adduna firiwul ne mënoon na ci ditu yàlla ñàkk souffrance tumaranke sonn xiif mar firiwul ne yow mën nga bokk ci ditu yàlla bu ko abalee te yonente wax na ci hadis ba ne ataa'imu shaakiru xayru nee na ki nga xamante ne moom mooy kii lekk tey sant yàlla moo gën foofu ki nga xamante ne mooy kii di mu moo ko mën ci yàlla ki ñu tuddee Asufyaan Asawri nekkoon ku dëgg woon àdduna dañ ko mos a laaj ne ko tus mm. te war ba te du yàlla gërëm la xam nga am bu nekk te yàlla gërëm la ban moo la gërëm mu ne moom fekk na ci alquran ñaari neema neema la abdu innahu awwab mu ne kenn ka dafa sonn ba ñëpp di ko yërëm yàlla tuddee ko neema la abdu mooy ay yóoru mu koy bari mu ne kenn ka dafa am ba ñëpp ñee ko yàlla tuddee ko neema la abdu boo fi dina mu ne ma am lu ñu jéem a lu ñu yéem a wëlbati bu bokk neex na la àdduna moom a gënal sol lu rafet du lekk lu baax du dëkk fu baax loolu yàqul dara jotewul ak dara asanité ci yàlla ndax nit daan na kilima nekk ci biir néegam bu rafet te teree ko muy jaamu yàlla imam bi ma soo jox leen misaal waaye yoo xamante ne jëmul tëdd ci toolalam parce que tey lii am natt yi ñoo ko fay xaar ci kaw lalam mu ñëw tëdd ci kaw lalam da leen gis natt yi ak daw ci kaw wëlbati lim yooyu di koy ufla ci nopp yi mu jël sajaadam jël kursam bi ci jumaa bi jaamu yàlla ak koo xamante ne dafa ñëw lakam bi ñu ko lal dem baax mu yaatu noor taal ventilo boobu bi mu amagul waaye taal kilima ngay mu bàyyi fàllal ba jóg taxaw ci julli ñoom ñaar foofu màq la ci yàlla kii lan moo tax mu jóg julli dinaa dina mu jëg naka kooku gi dem bu nelawee tey jii nii balay bosee hôpital yi dañ ko naan i yooyu liñ ciy siif mat yi dañuy siif ci moom boo xëy demoo fi mu mujjee jël ko sa kër ci jumaa yi kooku njagaar rek moo ko tax julli kii nag muy nii kii baax na nii lan baax na nii yaatu nelaw ësuba mu jël ko teg ko taxaw di julli dañ wax te moo ko mën a foofu ci yàlla parce que kii dafa kii nii moom jàppante xale la ñoom ñaar ñëpp baax nañu waaye boo doon natt ci dénkee moo gën moo tax am alal am sutura am teraanga jotewul dara ak ñoom ñoo jiitu yàlla. bari na te ci jamono ñii liggéey ci bureau yi yi ma la bàyyi xel am na te ñii liggéey ci bureau yi di liggéey ci marché yi am lu dul jeex seen martaba te yàlla ñoo ëpp sax yenn xale général yi ñu joxoon ci réew mi ay way Tinsel tau. Tinsel tau che yang na. Kudu Ya la. Ya pun akan ketali dengan yang Jalan dia yang wasa. Jalan yang wasa. Tapi yang kita perlu mesti difakar. Kalau menurut fakar. Kau tuan. Jalan dia itu belum muslim. Kau yang dalam kecil. dem buur dem daa am na ko fi lan mooy li nga xamante ne ñoom ñooy ñeent yi nga xamante ne bu ñu ñaanee yàlla yàlla du ko nangu ku ko naan benn benn bi la gis na ko parce que jàng moom noonu la nga considéré xëy na dafay faat ñeent yooyu seen jëf sala sala mu ne yàlla du nangu seen ñaar bu njëkk ba mooy waa joo xam ne dafa croisé ay loxoom toog ci biir néegam ni yàlla may maam yàlla may ma dégg yàlla may ma mu yàlla may ma mbubb rafet te kon si na ko mu ne borom yàlla dafa nangu ñaan parce que yàlla daf ko ne ko sabablu te def naa Mariam ak état mu toll woon di wasin yàlla saxalal ko tàndarma ba mu keppaara fa ay doomam def na ko yëngal yëngal ku sabablu ba mu yëngalee te loolu yëngal boobu mënu koo daaneel waaye yëngatu ba mu defal effort ba mu defal moom la ci yàlla sama lool kon a def effort di ñaan ko doon ku góor yàlla boole la soxna wala nga doon soxna yàlla boole la ak jëkkër mu def la lu la métti nga taxaw di wax naan bàyyi daal ak yàlla du la ci yàlla dina ma àtteeg yoon mu yàlla dundee àtte yàlla dafa naan man dama la ko jox pour nga yaram ko bu dee ko jiw yàlla dama la ko jox pour nga toppatoo ko nga yaram ko kon jabar bu ñaanal jëkkëram du dal jëkkër bu naan ñaanal jabaram du dal parce que kenn ku ci nekk dafa am àq boo fekk sa borom ñaan yooyu du dal moo tax da ngay gis jigéen muy wax naan ne sama àq bu la dalee di ko wax jëkkër nga gis góor bu koy wax jabaram di ko sama àq bu la dalee dara du ko dal parce que bu dee ko góor ne yàlla def la wax ne toppatoo ko yow la ko ci say loxo la ko yàlla bàyyi léegi nag yàlla du la ko jox ba pare wëlbatoon na di ko ñaan pour mu alalal la ko déedéet yow yaa ko nga toppatoo bu dee yow bu jigéen ne lay wax sa jigéen nag yàlla dama àttee la sama àttee sama àq dina la topp yàlla du la nangu ci ñaan boobu parce que yàlla daf la jox sa jëkkër pour nga yërëm ko yàlla daf la jox sa jëkkër pour nga toppatoo ko lu la ci naqar waxtaan leen bi déggoo kon kooku yàlla du nangu jaam ñetteel ba mooy bi ma wax dégg mooy ku yàlla jox alal mu foyee ko fakar fakaree ko bi alal bi jeex buy ñaaxati yàlla yàlla moom nangu dafa mel ni nga jox benn waaye téeméer rek sarax ko mu jël ko xotti ko ci sa kanam répati na dañu koy may jiw na ko may jiw ñaar ko sa bopp ko maye yàlla bu alam amul tànga parce que bokk tànga nga ne ma waaye te ñu lay digal di xaaral ñeenteel ba mooy koo xamante ne benn waaye ko leer si mu yëkkati alal ja lebal ko te utu seede bu toogee di wax naan yàlla ma yàlla atténué di ñaanal ko ku yoroon bor ba ñaan ba du dal parce que yàlla def ko naan ne ko waxu naa la nga ut seede naa la nga ut comme bàyyi nga yoon nag boo ñëwee ci yàlla yàlla ne woo naa nga seede bu fekkee ne nag ut na sa seede ñoo ne ko fay ma sama bor kii seede seede ne yaa ko yoreel bor mu bañ a du la fay boo ñaanee mën na doon parce que moo la toll waaye fii dina amul seede boo wax ne yàlla ma yàlla àtteeg yow yàlla dina mun a parce que du la fay xam nga ñeenti yooyu ay la xamante ne moom la doon laajte gis nga ko démb comme yàlla bëggul yàq nga am ko ku la ñu firku ko la ñu yëkkatu وكان بين ذلك قواما naturel nekk ca bopp ci lislaam la lay wax na bu dee tegtal bi mooy lu ko aar ci naaj lu ko aar ci seddaay kon bu ko defal ci néegi ñax sax na ko aar bu ko deful nag utala ko benn néeg amul fu mu fanaan ñu ngi naan ñibbi c'est ba yem fa fekkee ne jox ko mu lekk te mooy añ ak te mooy lu téye biiram ñu ngi naa tas ñetteel ba mooy du koy fanaanal maanaam di koy jox akam ci takk na ko ba pare te du si moom ci kaw la jabar ji am na droit ne sëy bi na fi yëpp lii la yàlla lii mooy li mu war a def am jabaram def boo ko defalul jabar ji am na droit tas sëy leneen lu ko laajit nag bu ko too xam la te loolu moo gën a bari ci jamono ji ñaan lii laaj ma xam ne dafa jënd de wala déet di jël jàll jàll yoo xamante ne gis nga ko ca marché la rek mu ngay jàll junne dàll kay jaax lu ci xam mm-hmm. waaw ñun ñaari benn ñetti téeméer am ko mm-hmm. moom dàll ba mu mën nag mooy junne lay jar wala ñaari junne moo tax ñu jox ko ko jox ko indi la baaw ni sama jëkkër di ma jàppale daf may sonal erreur la boo ko defee nag àdduna bi ay àndam la ñu am ko dëgg la jëkkër bu koy sonal bu koy defal dara bu koy may dara mm-hmm. état la kon way bi yàlla wax ne na ko koo defal te bu ko ko defal ne joxoon ko ne ko demal nga ñaaral xam nga ni mu ko wax yëngale fa sëñ bi waaye comme su koy ñaar yàlla ne ne joxuma la ko pour nga di koy ñaar dama la ko jox pour mu ma bu fekkee ne ku góor yi du noonu jabaram li ko war a defal mooy mu jox ko boppam mu ngi ko tere boppam loolu te lu mu ko defal mu defal ko ko fekk mu tombewul Nilipokuja Jabal Jibehe, yalani na kula tabu alayhi na sabila. Pokuja matoka. Sasa Jabal mwita kwa ebe bora. Pokuja matoka. Bugo bana kufa kele tekul ebe bora. Jabal mwita. Wala bugo wal tote kuna mina ati ma yalla atimu yalla ma ala kuyo tena toka. Pokuja. Yalla joko na kukuna yalla. Kuna yalla. Sama. Kijama. foog nga bàyyi ngay xam li nga moom xam loo moomul ah moom nag moomuloo ko yàlla moom moo ko moom kon amuloo droit di ko ñaanal gis nga ko pour yàlla àll mu teg ci biir léegi nga ni ñoom ñooy ñu baax yi seen critère wala diina gaa yi nga xamante ne laa yad'uuna ma'a yee mu tudd ci ay gannaaw yëpp ay melokaan la ak ay jikko waaye yii muy tudd si nag ay bakkaar ay bakkaar la pour mën la ne fekk man nit mën naa bokk ci nit yàlla yi def bàkkaar ah nit mën naa bokk ci nit yàlla yi def bàkkaar parce que la mu la mu mujjee aay ba moo taw ba mooy tuub te imaam al Junayd ñu mas ko laaj waaw ndax wala yi mën na def njaaloo mu noppi lu yàgg ah kon ñu mën na ne lu kon bul gis nit rek muy def bakkaar di naan sangara di def lu bon di fanaan ci boîte yi xeexee bu nga tuub nga dem manul ne yow yàlla def nga seexlu yàlla bu seexlu jaam déedéet ah, Cheikh Abdul Xaadir li Jeylaani mas na toog ci daara ñu dem ba guddi mu am benn waay bu ñëw sàcc si foofu gars yi dàqee ko sàcc mu daw ñu toog ba mu guddi bi di waajal jeex Cheikh Abdou Khadir Jeylani génn fi ne man de yàlla yënkeewal na ma fi ma toog ne am na benn nitu yàlla boo xamante ne moom ci suñu gannaaw ci garab yi nekk fii ne naa ko dem ziyaare ji moom laa dem ziyaare ji. waaw loolu ànd ak ñu dem ziyaare ji ko ba ñu demee fekk muy waa ji nga xamante ne moom lañ dàqee dem ci guddi kon pour woon la ne mu doon sàcc xeexewul ba taw rabiatul adawi jànguñu tarixa xamal xeetu mbokk bu nekk def na ko xeexee bokk ci bokkal yàlla moom la fi boo jàng seen kese yi li Cheikh Sidi El Hadj Malick wax moo ci nekk ba mu seede Cheikh Amadou Bamba radiyallahu taala fi ngay xam mag ñi ñu baax Sidi El Hadj Malick mu ne koo fi gis dafa tudd toj na mu ne ba mu des Amadou Bamba yamul islam ñi see dem la danañ wax sa moom sa jaarul ci ay pàcc waaye waaye waxin nga mooy ne bëri na ñoo xamante ne def nañu seenu téere jaar seenu mbune bokkul ak ak li xale yi def mooy sa biyoon sa biyoon loolu daal na biyoon déedéet boobu wax la boo xamante ne baaxul waaye li mu wax mooy léeg-léeg nga gis nitu yàlla boo xamante ne démb ba kenn mënu ko nettali parcours am ba ko nettali rek adduna fa ñàkkaatee la kan mooy dégg dañ ko te tuub lañ la wax mu ngi ñëw ci kanam il faut nga déglu ma il faut nga déglu tuub laa la wax mu ngi ñëw ci kanam donc nga dégg ay bu baax la parce que li muy wax fi mooy ne yii mooy tudd si ay bakkaar te léegi boo dem nag dañuy gis nit ku def bakkaar ñun ñu condamné ne ko ñun ñoo dul baale waaye yow la dafay baale moo tax dama koy faral di wax léegi boo dem nit def bakkaar moom mu jóg wëlbati ko dem defee toog yàlla ñun ñu def ci biir bakkaar bi di ko koy jëlee parce que moom yàlla jubóo nañ bu yàgg te ni tam bakkaar bàyyi ko yàlla bu la ko isaal bu la ko laaj bàyyi ko dina dem ak yàlla la ndax tuub na wala tuub ko moom yàlla la waaye ni nëbb nga wax ci aaya bi ne yàlla bu seexul jaamam te léeg-léeg nit buy naan sàngara ak yooyu moom ci boppam dafay def lu wax ne moom man man bu ma tuubee yàlla du ko naan bu ma tuubee yàlla du ko naan Abdoulaye Moubarak nettali na ko ba dem liggéey keroog ba mu ñëwee ci daara Xasan al Basri ci mu nekkoon ginnaaw sàngara di def lu ko xeexee ñëw ñëw jàng si boobu fekk ko muy firi benn aaya alam yaa ngi léegi dina am te sa bu am solo que mu ne boobu dem na ba nekk mag nekkoon policier waaye nag mu ko doon def bu mu demee ba mag mu raw ne dafa mu ba mu jënd ci mu am doom mu nekk doom bu jigéen nam doon naanee sàngara mën a teewul naanee noonu sàngara nam la def ba lu bon mën a teg ma parce que mu ne doom yaa ngi fi surtout benn ne dafa ñëw jël butéel bi teg jël kaas bi teg commencé di naan si doom bi ñëw dafa papa may ma te mu ne moom bëggul te moo naan sàngara mu mujjee kon li nga war a bokk ñu ci kër mu mujj li ngeen ci sàngara ci biir kër muy dem su nekkee dafay dem ci àll bi def ko fa door a baax nee na waaye buñ ko jël te dafa bëggoon doom bi ñu ne ko doom ji feebar na bu dem ci hôpital fekk ndekete faatu na mu ne ñaar ko metti na ko parce que doomam daf ko bëggoon ñaareel daf ci kontaan parce que amatul lu ko arrêté ci bakkaar parce que doom bi daf ko doon daf ko doon daf ko doon daf ko doon sóoraale ci def bakkaar mu ne nag bu jëlaat ko occasion di indi sax dara ci kër gi di naan di def lu mu ne lu gën a def muy gént nee na naka lay mel ni yow daal xiyaamati moo taxaw mu ne mu gis safara bu rëy bu ko dàq nee na muy daw di daw di daw di daw ba gis na naka la yëg ci kaw montagne bi gis benn jaan safara bi di koy topp jaan bu konkal bi nee na di koy teeru si ci saa si bu xam tiit noonu mu tiit noonu rek nee na mu gis doomam bu jigéen bi ci biir gën bi doomam bu jigéen boobu faam mu ne mu gis doomam bu jigéen dina doomam bu jigéen bi moo ñëw téye ko dina teg ko ci dënnam dal di wax jaam dina ko bàyyi ko ci sama xonq la di wax safara dina ko bàyyi ci sama xonq la ci la gis jaam bi dem safara bi dem dem ñu deret jàng yow dina ba mu yëwu nag ñu jaaxal lii lan la waaye mu ne balaa muy yëwu dafa laaj doom ci ne ko waaw doom mu ne ko naam ah mu ne ko safara ko sonn la de ko ci dégg dégg bu ko ñëwuloo te xam na ngay def mu ne ko safara bii la fekk di lan la mu ne ko say bakkaar rek bakkaar ñoo la topp gis nga boo bàyyi bakkaar yi mu ne ko nag jàmbure bi nga xam moom la gis rek mu ne ko ak jàmbure waaw benn bu ci nekk bu dee jow nag yow rek sànq la waaye mu ne doom moo tax doom baax mu ne bu ma juree toppatoo ma ba noonu laay faatu duguma moo tax moom la la yàlla wutee parce que yàlla nit ki bu doomam faatoo doom bi lay teex a ji doom boobu dañ koy jël teg ko ci kaw balance ko indi woon mu ne yàlla bu xisaabee nit ki nee na jëfam tuuti mm-hmm. bu doon ne am na doom bu mu kàllaaf ma loragul faatu te mu muñoon ko nee na dañuy dem jël doom boobu teg ko ci kaw balance bi pour mu mën a diis mm-hmm. doom boobu noonu nag li koy préparé mu ne ni mu daje ji jàmm bese départ ko tëddi ko ñëw fekk fa xasanul basri mm-hmm. muy لكن أنا أقول لك إن أنا لك أن أنا ده لك أن أنا سورة لك أن أنا للذين لك أن تخشى قلوبهم لذكر الله ولا يلا وهم يمدون وخل إثنا كلا يدين ما كل يدين من يدين في الله يوم يدين في الله يوم يدين في الله إثنا كنت أقول أنا كم لك أن أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا لك لك لك لك لك لك لك لك لك أن أن أن أن أن أن أن أن أن لك أن مورم بولا نون لا يمل وهم ميت يلا بوي وخ بحر الله ما هو جريمة يلا يدين nee na ba mu ñëwee toog dafa mel ni Hasanul Basri moom lay waxal aaya bi dafa mel ni moom lay waxal moom la koy firi ñu naan moom moom moom moom ay romb ñoom tuub ñu naan keroog la tuub keroog la bàyyi lu bon moo tax mu ne leen keroog bi nga xam ne Hasanul Basri yi gaañu na te keroog tisbaar ba ñu ko julli ji ca timis dëkk ba fees tël ñëpp ñoo gunge Hasanul Basri keroog la doon njëkk mu ne kaay la ñu fi la jaar ak la jaar bu dul woon moom tey kon ni ko la li def na ay njombe yu ne te wóor nga def na bokk ci nit yàlla def na bëggoon ci aaya yi ne ñun léegoo léeg jël demi waaye condamné ko parce que bakkaar ba mu masoon a def te fekk léegi mu ngi bokk ci nitu yàlla yi te lay ci bàyyi xel waaye ñun nag dañuy faral di laaj dañuy faral te pourtant waa ji def bàkkaar a defuñu ko ñun bàkkaar bi diggante ak yàlla ñu jógal nga bëgg di koy àtte ko bon kii kii mu bone kii lii am lii te yow nekku ci moom la ak yàlla rek nga ñun moom yàlla la rek nga ñun moom yàlla la loolu la lay wax ci aay moo tax mu la wala dina bokk na ci gaay yàlla yi nit yàlla yi nga xamante ne laa maallaahi ak yàlla ilaahan aaxar boo tax leen ko maanaam seen aqiida seen pas-pas dafa dëgër jiitu yàlla pas-pasam dafay dëgër nan la sopp sëriñam fonk ko waaye du ko teg place bi yàlla xoolal suñu góor gu Cheikh al Islam waxam boobu noonu waxoon ne nga xam ne boo amul njëriñ doo ko jëriñ te taw yëpp jëriñ ba mu waxee ne mais les volets fruitiers bi ñoom lay gën a moytu sa yàlla mm-hmm. waaw moom léegi dara kii muy def waaye la tax bu la ko firilee rek nga dégg ko mu ne parce que si li ñàkk leen bétti la mën naa ko ñàkk a comprendre te bu dee yàlla na yàlla xam na lépp kon ba léegi génnewul firi na te defe naa ni mënul fonkee firi na comme moom la fonkee firi na mm-hmm. waaye ba léegi ci cadre bi la sa yonente itam loo ko fonk fonk Seydina Muhammad doo ko bokkaale bi yàlla moo tax boo demee ci nit ñu baax ñi ak ñoo fonk Seydina Muhammad waaye bokkaale ñu ko ak yàlla bu ko am la jëlaat ne ak a fonk yonente bi boo demee Cheikh Al Khadim radiyallahu taala ak a fonk yonente bi waaye jëluñu Seydina Muhammad na def ko muy yàlla doo ko dégg ci seen jàngale doo ko fekk ci seen bind ci seen kasaay yi déedéet Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu dul génn li mu génn moo ko ci dara mu ne kon bokk na ci nitu yàlla yi seen melokaan mooy ne laa yadoona lu mu jaamu ma allah ak yàlla ilaahan axara di ko bokkaat gis nga yàlla dafa wax lu wax lu wax ci alquran wa maa yu'minu aksaruhum billaahi illaa wa hum mushrikuun léeg-léeg gis nga ñu gën a bëri ci jullit yi ñu ngi ci bokkaale téye wuñu ko moo tax jullit dina nekk jullit tey bokkaale yàlla parce que bés boo jëmee keneen ci lu yàlla ne kooku moom mooy yàlla rek yow dina boo ko jëmee muy benn wala yaqtuluna nafsa te du ñu lay bakkan allati bakkan ba nga xamante ne xaraam la amul te droit rey ko te bakkan balaa ñu am droit rey ko mooy ne dafa lay nit ama ñor pour moom la yàlla waxee loolu ne ci tabaqaatul awliya yi danga fekk waa ji ñu tuddee al mutawakkil te buur loo doom la ci al mu'tasim nga xamante ne doom la ci Haaruna Rashid ci tabaqaatul awliya te dafa fekk al mutawakkil te buur la woon xalifa la woon te jëlee ci awliya yi la bokkoon kon mu ne ñooñu bu dee ne yore nañu kàddu wala yaqtuluuna nafsa ndax mën na doon juif te bokk ci nit yàlla man la doon bëru te bokk ci nit yàlla ndax tey jii ni duur ku taxawaale ci mbedd rek rey bi yaqtuluuna an-nafsa ñan la ko yàlla jox buur buur moo mën a rey nit te yàlla dafa wax dara bu dee rey na ko ci dégg kon bu rey nit nga dem koy rey mu ne nag buur boo Seydina Omar ñemewu ko Seydina Abubakar ñemewu ko pourtant am nañu leen contrôle waaye réew mi réew mi moo tax mooy li mu doon tuddee ne ko gis nga ko awalul mun mooy njëkk a nekk buur parce que moo njëkk ah, a def loolu ku ko contrôle mooy moo tax saxaaba yi dara woon ko ci ba jur gi naa bi problème bu rëy la ñu doon ci saxaaba yi. te Seydina Aïcha ne ko ba mu ñëwee Madina Seydina Aïcha may ko soow mu naan comme daal la ñëw na. ba mun naa ñëwee pare gis nga ko mun na ko dugg lu mu ñëw daal kii nga rey te bokkoon ci saa day jël jël ko gën a fonk nga rey lu tax rey ko mu ne ko loolu suñu problème mu bon kii la projet la bu tuddee yaay bu tuddee ko waaw bu la reyoon la parce que lii nga naan bu ma ci dëggoon façon pour nga naan ko def ko doog a def yow mi yow mi yow mi indil ko benn nga ma kañ la ko ko gën yàlla du parce que bu ñu waxee sax wóor na ma ne ñoom war a maa réew kon ñu xam naa yow jullit bi dëgg dëgg jullit bi du leen nit waaye bu yàlla dogalee nag bu doon buur bu doon buur kooku bu reyee nit buur bi dina ko indi ñëw rey ko parce que rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam def na alqisaas Seydina Souleymane def na ko Seydina Daouda def na ko Seydina Omar sax door na ni te njaaloo bi mu far dee ci loxoom la dee ñu ne doomam la te tere boobu noonu mu rey mbir dafa tere ne bokkat bi ci nitu yàlla déedéet parce que reyu ko ci lu ko ñor yàlla dafa wax ne wala yaqul nafsa allati harama allah illa bil haq kon pour ba nga xamante ne am ku rey mbir ñu war koo rey buur boobu ko reyee